jaajëf tee jaajëf tee sama gaay yi sama gaay yi sama gaay yi Mister Shake depuis les États-Unis d'Amérique côte ouest lay doon côte dugg si leen dugg si leen ñu ñëw def vidéo ci Damboj ñu def benn live wax ci Damboj li nga xam ne dañ ko bëggoon a rey Dame dañ ko bëggoon a rey lii c'est grave c'est extrêmement grave waaw lii moom il faut que ñu def ci live ñu alerter parce que man démb waxoon naa leen mais mais gars dugg si leen dugg si leen ñu tegal leen Dame bi nga xam ne Mr Lame Lame dañ ko bëggoon a rey sama waa ji sama waa ji dañ ko bëggoon a rey xaar leen rek gars kay ku dugg da ngay like ku dugg da ngay partager rok pay ngay li c'est extrêmement grave dambu di rëcc na la ilaha illallah muhammad rasulullah li ku ma ko waxoon ci Sénégal Macky Sall dàmbu ji ngi nii gars yi xool leen oto bi xol leen gis nga bal bal yi bal yi gis nga gis nga bal yi xolleen gis gis ngeen bëtt bi laa ilaha illallah muhammad rasulullah gis nga bal bi juróom ñaari bal laa ilaha illallah Sénégal Macky Sall defuñu fuu laa ilaha xool leen laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gis nga gis nga bal bi laa ilaaha illallaah Dambos rëcc na gars yi dinaa leen defal analyse ndax TFM la jógee xool leen bii xool bi xool leen bi am na beneen juróom ñaari bal gars yi like leen partage leen laa ilaaha illallaah laa

hôtel ba ñu fekk ko fa filmer nañ leen like leen like leen like leen partagé leen waaw waaw ak muus dàmbu dafa dafa gis nga ni photo yaa ngi nii photo yaa ngi nii dañ ko topp ba ci hôtel ba parce que gis nañ ne deewul dégg waaw dañ ma bëgg dañ ma bëgg a rey balyangook balyangook weddi gis bokk ci balyangook non <laughs> Roqe Ndiaye lii lii lii il faut ñu wax ci xaaral ba xaaral rek après dinaa la commentaire la ilaha illallah xaaral ma avancé leen yéen ñi ay ay waaw koy waajaa ni dégg nga waa jaa ngi ni kenn ci waa ji mi ngi ni dégg nga dañ leen filmer biir hôtel bi seen oto amul numéro seen oto amul numéro mister layam layam ndeysaan ak kërëj gars yi tey naa leen defal analyse wala musul dégg xaar leen bàyyi fi pare rek dinaa leen defal analyse wala musul dégg man maa Mister Shake laaj leen nag daneen di laaj déglu leen dégg nga dugg nga dégg nga mi image yaa ngi ni da nga waroon fexe nga jël vidéo bi nag parce que ñoom dinañ sàkkal pexe vidéo bi photo yi rek doyul photo yi rek doyul waaw waaw

Wow, accident accident Wow, sañ merci merci doy na rek laa leen bëggoon ngeen dégg li dambo wax li ñu def DJ Badji def ko Fulbert Sambo. Mom la def dambo tey defal analyse boo musul dégg parce que man Mister Shake man duma comme ay Abdou Mbaye di génne ay communiqué di wax naan rey bi ñu bëggoon rey dàmbooj nañ ci génne affaire Adji Sarr ak wala euh, euh, euh, procès Ousmane Sonko waxu naa feex nguur gi def ci takk ripp nguur gi da ci takk ripp waaw loolu man Mister Shake man maa ko wax parce que dàmbooj nee na dañ ko ndoroon rey ne accident la li tax ñu topp ko dañ ko ndoroon rey taal oto bi parce que bu boobaa kii di feeñ bal yi bal yi di feeñ impact bal yi dañu ndoroon taal oto bi ba pare dàmbooj ñu jël ko sànni ko ci géej gi wala ñu ne wala ñu jël oto bi sàkkal pexe oto bi yóbbaale oto bi boo demee sax euh, remorqueur yooyu mu ngi ngi woon seen ginnaaw dañu ndoroon taxaj affaire yi ne dafa accidenté wala lii laa mën nañu sax jël loo xam comme ni ñu def euh, Fulbert Sambou def ko Didier Badji noonu lañ ko ndoroon def sànni ko ci géej gi nag kenn du xam fan la dàmboo nekk li sama dafa graw bal ay bal ñu ñu dóor juróom-ñaari bal dambu jëree la mister layam layam c'est un soldat ndax li keneen ku mu mënoon dal di nga di nga dé wala accidenté wala ay bal dal la mais comme moom dafa garder sang-froid mu accéléré il a la présence d'esprit mu dem ci ben hôtel mu làqutu dàmbuj yàgg naa ko euh, euh, ñaawal yàgg naa ko khas parce que des fois tamit day déraper mais gars yi like leen partager leen mais nag tey moom dañ naan ko chapeau dinaa leen defal analyse boo leen musul dégg analyse boo leen musul dégg dinaa leen ko defal parce que Dame Mbodj xamu leen li li gars yi bëggoon def marche Sonko bi la ñu bëggoon suul ak leneen dañu ndoroon na rey Dame Mbodj nga xam ne bu ñu yeewoo xale yi sax du ñu tala xeex parce que dañ naan sii Dame Mbodj dee na Dame dee na fan la Dame Mbodj nekk

bu góorgóorlu mais TFM nañ def attention Bouba Ndour na def attention Youssou Ndour na def attention tax ndax dàmbooj bu deewoon ñoom duñ si set ndax Pape Ngagne moo ko invité faram pàcce xaram pàcce nag xaw ma ndax heure yooyu la daan am sa jour wala amul heure yooyu chaque jour ñoom ñoo ko invité faram pàcce ko invité Pape ngañ di ko laaj dàmbooj xas Mame Mbaye Niang ne Mame Mbaye Niang mii warul heure bi waroon na prison Ben, dama bëgg xam est-ce que nous, dañoo ño ñom ño li américain di wax setup setup ndam ñom ño piégé ñoom ñoo iri euh, dàmbuj est-ce que TFM ñoo iri dàmbuj lolu tay bu dàmbuj dee même bu ko TFM iriwul dinañ leen ci takkal dinañ wax ni yéen piégé dàmbuj fexe ba mu ñëw ci seen émission minuit minuit demi lu tax invité leen ko beneen émission ngeen invité ko boobu émission guddi mu ñëw parce que xam nga ni day guddee ñëw bu ñëwee ngeen fexe mu wax ci Macky Sall xas Macky Sall xas Mame Mbaye Niang suba la marché bi suba la tribunal bi ngeen bëgg am beneen diversion bu dee loolu Pape Ngagne yëg nga ko Pape nga bu dee yëg nga ko ah Pape Ngagne attention boo ko yëgul Pape Ngagne dafa war nga war ngaa kaas Youssou Ndour bu dee yëgoon nga ne lii gars yi dañ koy def bu ba Ndour directeur des programmes dañuy iri parce que lii man mënu leen ma gëmloo ne lii dañoo seetaan télé bi rek Macky Sall mer parce que li tax ma wax Mame Mbaye Niang parce que Dambodj après man lii dafa tax sax ma demaat seetaan faram-fàcce Dambodj Dambodj dafa nekkoon di xas Mame Mbaye di ko wax dafa waroon dem prison mu tuddee Macky Sall soxna Batoor dafa xas Macky Sall tuddee ko soxna Batoor est-ce que ci saa si la gars yi mer ne kii dañ koy rey parce que déedéet parce que Dambodj yàgg na wax loolu.

bu paniqué accidenté après ñu ñëw taal oto bi wala quelque chose comme ça xëy ñoom loolu lañ ci jublu woon bu ñu taalee oto bi lu gaaw gaaw dañ ko ndoroon taxañ jël oto bi yóbbu ko euh, euh, ñu yàq oto bi buraaye ko parce que fii bi ñu la reyee du ñu sax nangu autopsie du am dàmbooj bu ko bal du ñu wax wax autopsie mais lii c'est extrêmement grave mais gis nga analyse bi mu leen di defal mooy ne man démb sama yaram daf ko yëkk nee naa leen démb man ba may yeewoo parce que man heure bi may nelaw si la marché yi di am man dama yaakaaroon su may yeewoon à la une rek damay gis ñu ne rey nañu Sonko man Sonko laa gënoon yàq ragal na dañ koy rey man billahi wallahi taalahi démb dem ba instant yi may yeewu maa ngi naan tey bu may yeewoo ragal naa dinañ wax ni sonkoo dee na nekkate boobu dàmbuj moo ndaroon dee dàmbuj bu deewoon ah day xoqatal ñoom Clédor la moo tax Clédor temps yi di daw di daw res di wax waxu jàmm gaay yi dañoo tiit parce que gis nañ ni ñi ay criminal lañu ils sont capables de tuer wa gaay yeen tamit da ngeen di da ngeen di da ngeen di partager da ngeen di like man mënuma fi nek tamit di jël ay risque di wax ci ñi ñi nga xam ay reykatu nit lañu ah mais roxay ndjay tu as peur yeen bu ma leen di wax ni ñi ay reykatu nit ñi do leen ma gëm Ousmane Sonko buy xef ñukoy ray ñu nan ma bayil di wax président Sonko dé dé xana yow da nga bëgg mu dé mais gaay da ngeen di like yeen tamit da ngeen di like parce que man tamit bu ma fi nek bàyyi sama liggéey di jël ay risque di def di def ay kii ah ngeen bañ a lay mista layam layam dañ ko ndoroon a rey sànni ko si géej gi dégg ngeen moom moo ko waxal boppam mista layam layam bi moo waxal boppam tegal naa leen vidéo bi dañ ko ndoroon a rey sànni ci géej gi bu ñu yeewoo oh, kenn dootul tal marché kenn dootul tal marché xale yu ndaroon marché dañ ñu i xaar ma dem connecté wu dégg naa dambu dañ ko rey mais gis nga yàlla li def juróom-ñaari bal le chiffre sept juróom-ñaari bal ci benn djuma la romb nee na côté fofu la amé mais yalla bu lay sam kenn mënu ci dara mais nak yalla yalla yalla bayel sa tol dafa rëcc Dame dafa rëcc il a échappé belle mais li daf ñuy won né ñun ay tapet lañu ñun patriote Macky Sall wax naa leen nekkatul wax naa leen Macky Sall nekkatul wérul soxor la def. Marème Faye Sall dafa soxor ay reykatu nit lañu ay franc-maçon lañu gëmuñu yàlla gëmuñu yonent gis nga dëgg bu jotee dañ koy wax comme léegi affaire u rey la ñuy def ñun ñoo war a jël suñu responsabilité dinaa leen tegal yaana maar après parce que ñoom génn nañu def seen conférence de presse nee nañu lu amoon ñu jàpp ko ñaari yoon dootul amaat le 30 mars mais balaa may wax 30 mars nañu wax ci Mr Layem Layem yi j'ai respect pour lui parce que mais nag ci benn côté li ko dal moom ñoom ñoo ko def parce que ku nekk léegi man na man a man a man a man seen man a man a bi naan dàmbooj nee na dafa bugg présenter euh, président bu amee caution day day day dem présenté président loolu moo leen indi lii yëpp boo leen ñëwoon ngeen def lii ci Sonko yéen ñëpp makk Sall du leen tànn benn par benn di leen rey yéen marche bi marche bi c'est vrai que Damboj mënul woon dem parce que ci oto ba la nekkoon mais Damboj dafa ñun ñëpp à partir de maintenant gis ngeen ne boo leen topp ci ginnaaw Sonko ko sax Macky am na nu muy demee Macky da koy rey waxtuma la yéen ne ne mbuujaa mbuuj laa lan moo tax Babacar ture kéwloo daw lan moo tax Clédor di wax waxu jàmm parce que dañoo xam ne ñii ay reykatu nit lañu sénégalais moo gën a bon sénégalais bu bon sama chiffre bango 144 sénégalais bu bon moo yées ci àdduna ay doomeraam gis nga ñi ñu wane ñi ñu wane ci ci ci ci ci ci euh, hôtel bi xaw ma ay sénégalais lañ xaw ma ay guinéen lañ xaw ma ay lan lañ mais dañoo bon ay rey gis nga Sénégal mii kër xam nga la moo tax sénégalais dangel xam nga sax ay Côte d'Ivoire ñoom dañ naan la man reykatu nit laa du ñu nëbbatu mais sénégalais day làqatu ci l'islam day làqatu ci que Sénégal a a parce que yow 100 francs yi 000, 1 fay wala million wala millions... millions. jar nga ne da ngay faat nit da ngay faat que nit ba pare nga am te xam nga la ci pour ñom affaire la affaire lañ koy def way dugg ci auto bi xam nga dugal nañ ci 4 4 dañu am mission ah, yor et eh, l'élément hein, la cible il na a na TFM mi ngi fi bon kan moi responsable Macky Sall kan moi responsable Marine Faye parce que a président Souleymane Sambou wax un accident la parce que ba wax accident parce que peut-être police ñoo doon dóor ah Didier Badji xëy na mais daa mbooj moom yàlla moo leen weer parce que preuve yi dafa leer ay bal ay bal man billahi wallahi taala ba mu njëkkee dégg ba damboj wax ne dañ kaa bëgg rey man gëmuma ko woon sax gëmuma ko mais démb heureusement man parce que man pour man dam damboj day victimiser wu quoi parce que dafa bëgg nekk président mi ngi jël suñu bë Sonko xam nga mais démb damaa jël pause liggéeyu ma dama ñaan sama patron ma ne ko may ma ma wàcc parce que Sénégal li am il faut que ma toog ma seetaan vidéo yi ma analyser sama patron may ma ma am trois heures de temps yoo xam ne dama toog ma seetaan ma jël sama temps ma seetaan dàmbuj waaye ba ma gisee image man dama waaru ci yàlla billaahi Macky Sall moo bon Macky Sall moo yées Marème fay Sall moo bon Marème Faye Sall moo yées gis nga dëgg bu jotee te waxuloo ko sëriñ gis nañ sëriñ Omarienne bi mu génn mu ne dina wax mais moom dafa ragal parce que nee na na xalif généraux yu wax parce que Sénégal fu mu dara jëm naa fekk moo moo baaxul li jar a wax mooy Macky Sall reykatu nit la Marème Faye Sall reykatu nit la parce que si man Mame Mbaye sax du ma ko tudd parce que yow Macky Sall yow yaay président Marème Faye Sall yow yaay première dame lépp lu am vous êtes responsable manquant bu amuñu preuve parce que da ngeen ne dafa am ay vidéo gisuñu

mun na yàq lu nekk lu lu nekk si biir da yàq bu laalee fu mu warul laal sa xol wala feneen nga dee ci saasi loolu la ñu bëggoon def dàmbuj kan moo ko def imaginer nga est-ce que yéen a ngi imaginer ñi joxe ordre bi ne dem leen koj leen ko mi ngi TFM bu génnee fii lay jaar def leen lii ak ñaata oto ko topp est-ce que yéen ngi koy imaginer kan moo joxe ordre bi est-ce que Macky Sall moo ko joxe est-ce que Marème Faye moo ko joxe parce que Marème Faye dañuy def mii kër la. lu bari ñu ngi ko koy jiiñ mii kër la te bu xamuloon tey dina ne xam na tey moom tey moom amul lay moom amatul lay moom amatul ndax lii lu ne fàng kenn du ko jeex bàyyi leen tappet te ngeen wax dëgg ñii ay reykatu nit lañ te Sonko dinañ ko rey maa ngi leen di artu boobu ba léegi di artu da ngeen di nag bàyyi ba ñu rey fi dàmbuj rey fi mag mag ci ngeen doog a taal réew mi bu boobaa si trop ñun bëgguñu Sonko mu dee Sonko bëgguñu mu dee ñàkk ngeen fayda xale yi rek démb gàcce ngaalaama xale yi démb gàcce ngaalaama mais xeex bi dafa des Macky Sall il faut que ñu wan ko il faut que ñu wan ko ne saway ñun ragaluñu dee billahi wallahi taalaahi rey ñu reyal suñu famille yëpp sax bu ko jaree parce que gis nañ ñu def kër moo moo laa mor bu dee léegi kuy wax ñu dem sa kër ñu dem seen kër taal ko mais ñun ngeen taal suñu kër ci garaawul mais ñun li ñuy li ñuy li ñuy affaire u mii kër yi ñuy def di làqatu melni xamuñu lu xew Macky Sall melni xamuñu lu xew lépp la ngir nguur parce que ay franc-maçon lañ ay dem lañu han parce que dem rek moy ray morom nitam ko xamne defu la dara mais dambu dafa dafa len dafa len dafa len écraser dem ci sen émission Faram patch pap Ngagne na fekk nan way Sonko la la don def sud sud ba dem na fa plusieurs fois lan la fay def plusieurs fois ah pam Ngagne nafaq mba dambuñ ne ko nañu bàyyi leen seen yëfu naafeq Sonko dem na euh, Sweet Beauté plusieurs fois pam Ngagne Sonko dem na Sweet Beauté plusieurs fois na fa dem 100 fois et après na dem Sweet Beauté 100 fois est-ce que ça veut dire que dafa dafa dafa dafa violer aji sa mais pam Ngagne yow nafaq nga ak sa karaw wex wo xawma karaw lan la vrai nafaq nga billahi wallahi ta'ala yéen télé Youssou Ndour bi ni ngeen koy yàq Bouba Ndour nak mi ngi génn bu génnee khas Macky Sall mais les journaliste bu ñu génnee Sonko ñom dafa mel dañu bëgg duggal benn tànk benn tank ci Macky ci Sonko loolu mënul nekk moy li dal gën bu bon bobu mo la gën jaam bu bon lay def bu mu Sonko Sonko dinañ ko tak dinañ ko ko bu dëkk bi takké mu gis ñu ngi waji am victoire mu commencé génn talel ni def appel ay lañ Sénégal ci mais yow war nga wax affaire Adji war nga ci wax naan Sonko moo dem Sweet Beauté mais affaire boobu ñëpp dafa leer nañ ni ne affaire boobu dara amu fa certificat médical bi wax da Alfousseyni Gueye ñu ngi koy ñu ngi koy menacé xoolal Alfousseyni Gueye ni ñu koy def di ko menacé di ko suivre affaire mafia sama xarit Mamour Diallo ma tuddee ko doom mais ñoom ñëpp dañoo jaay seen ruu iblis te wax naa leen man maay Mister Shake dee leen ma déglu gis nga nee naa leen dama man dama yaakaaroon ne bu ma yeewoo dañ naan Sonko dee na billaahi man loolu la te tey la preuve sottiwuñu ko dara la preuve sottiwuñu ko dara démba laa leen barki démba laa leen njëkk defal vidéo man na leen trois heures di matin Sonko dinañ ko fekk këram waxuma leen ko waxuma leen trois heures du matin Macky Sall mii ma gis li tax mu ne Sonko du génn mais Macky fan la teg Sonko euh, euh, jóge meeting ñibbi mu tëj ko ne dootul génn dootul def dara patati patata fan la ko teg ma ne kii am na lu muy préparé Sonko non après meeting bi si suba si Sonko ne day génn pour marche 15 bi mu ne ko doo génn fan la ko teg ma ne am na lu muy préparé kii boo moytuwul trois heures du matin day dugg biir Sonko jàpp ko wala bu ko jàppul waxoon naa leen bu ko jàppul si suba si Sonko du dem tribunal dañ koy jàpp waxuma leen ko man sax dama yaakaaroon bu koy jàppee da koy jàpp bi pas da koy tëj mais man xamoon naa ne da koy jàpp du bàyyi Sonko dem tribunal parce que Sonko bu demee tribunal du egg xale yi dañuy génn def ko mu ñu defoon 3 mars man waxoon naa leen noonu lay demee man nag maa leen waxaat waa APR balaa 2024 ay weer moo leen dese dund man maa Mister Shake de ay selbendom tof yooyu la ñuy dem di len talal ay micro ñu nek fi di wax li li li patati patata man réalité la len di wax gis nga wa APR ay wèr mo len déssé dund parce que yeen ay tàppet ngeen ay dof ngeen te ñu ngi len di duggal parce que wax na len bo len démé ba seen président nekatul ngeen gis ñu ñu def dàmbuj genn len mais ay Abdou mbay bu dee li Sénégal bind né Abdou mbay yow ya ko wax Abdou mbay na fekk nga parce que di wax

Macky Sall moo dof bëgg pouvoir Marème Faye dof bëgg pouvoir xamuñu ndax dañuy naan xamuñu ndax dañuy drogué wu xamuñu ndax ñoom ay franc lañ mais nekkatuñu ndax nit ku nekkatul rek mooy rey moroomu sénégalais boo xam ne defu la dara nga koy rey te yow xam nga ne boo ko reyee après yow sa bopp dañ lay rey waa affaire ay weer moo leen di sa dund léegi yéen a war a jël seen responsabilité armée bi armée bi démb am na benn colonel bu génn bu wax colonel bi mu ngi tudd Cheikh Tidiane Mbodj Cheikh Tidiane Mbodj benn colonel la bu génn gars yi xaaral baax na benn colonel bu tudd Cheikh Tidiane Mbodj def na benn interview xaw ma Sénégal set la ko defee xaw ma TFM xaw ma naan xaw ma euh, Sénéweb defe naa Sénégal 7 Cheikh Tidiane Mbodj colonel nee na policier li ñu jàppee Sonko du yoon te armée warul topp benn nit.

am na yeneen yàqu-yàqu am na benn Auchan bu ñu taal te Macky Sall moo yey daw parce que audience bi dañ ko renvoyé ba le 30 gis ma lu ñu gënoon téye Sonko yëf yi dafa ndoroon gën a xam te xoolal Mermoz lañu jëm kër Macky Sall wala ñu dem euh, palais xaw ma lan moo nekk palais mais barke Rasul lay li fi amoon du fi amaat Macky moo ko jum na de ndax amaat na lu fi amoon du fi amaat amaat na taal nañu quatre bus te lii lancement la rek la booy booy ñu yaakaar ne booy mënuñu xeex booy Sénégal yi daf ci am ay booy yu sadik gis nga Macky Sall nu mu sadikee ah déggal kii di wax non avocat non Sonko kii di wax avocat mais yow yow est-ce que ça yow yow est-ce que ça va yéen leen analyser doo leen analyser le dafa nekk ci pression bu mag ndax salle bi dafa fesoon del mu am ay am ay am menace le juge là moom yàlla bu a comme comme comme comme comme comme l'autre là rip euh, avocat bi avocat bi avocat may y il non tout maître sëy waa APR stress le nekk te tiré. ci tiire ñi euh, euh il ci de xam kan ci am ay ay reykatu nit Suzanne Camara moom da koy wax moom nañu taal ñu rey Sonko Lat Diop da koy wax nañu xeex euh, mu mu mu mu mu féete boor Dembourou Sow waxoon na fi génn leen jaas yi mais ñi ci des ñëpp ay may ay mbay njaay kiruku euh, euh, nu mu tëdd ci mbay njaay kiruku yaa xam mbay ñooñu ànduñu ci Macky sàll di jël ay fetal di tiire ci dàmbuj kon bu ñu gisee lii ñoom ñoo war a jël seen responsabilité ak Youssou Ndour na jël responsabilité parce que gis nga dàmbuj bu deewoon Youssou Ndour yàqu na dàmbuj bu deewoon Youssou Ndour yàqu na parce que dañ naan ñoom ñoo ko iri piège ko ba mu ñëw ci faram-fàcce ndax ci biir faram-fàcce bi waa ji mi ngi koy wax waaw waaw APR bi mu ngi naan ko boo bëggee mu nañ fi toog ba une heure du man dama dellu après ma dem déglu faram fàcce bi kon waa ji dafa bëggoon dàmbu toog fa ba une heure lan moo tax parce que xam ñi lu muy gën a guddi ci lay gën a yomb fa rey nit looloo dàmb waa ji wax boo bëggee mën nañ toog nga may dagg ma lay dagg ñu toog ba une heure du matin imaginer bu dee Pape Ngagne xam na li xew imaginer bu dee waa ji toog xam na li xew ay assassin lañu c'est prémédité est-ce que yéen a ngi may dégg Youssou Ndour rëcc na billahi wallahi taala Ndour ma bu deewon dinañ parce que les nga euh, réseaux sociaux en dofuñu de Là la doon def minuit ñom ñoko iri mais mafia bi am Sénégal c'est extraordinaire mais li dañ ci yalla ay bu deewon bu deewon dañ di wax non oui dañ ko ray? non ray ñuko am preuve même li ñu am preuve rek déjà ngi il nee na même invitation bi sa mais loolu yëpp dañ ko war a flex Fred Fred loolu yëpp dañ ko war a topp nañu laaj est-ce que yow yaa sàkku dem farampàcce wala est-ce que farampàcce molo la woo dàmbooj na def analyse yow yaa sàkku dem farampàcce wala farampàcce molo la woo bu dee la est-ce que lan moo tax dàmbooj doful mais Dambou il est très intelligent man de vraiment am gën am respect pour moom man yaa waxoon naa kii dañ ko waroon def député wax naa leen Sonko daf ko waroon def député man xeexal naa Dame pour mu nekk député mais nag lii dina tax mu wàcc ci suuf parce que ñoom it Sénégal ku nekk dafa commencé am grosse tête parce que Dame bu demee bay wax naan su ma amee caution damay dugal pour nekk président nga xam ne Sénégalais ci boppam ça va pas lii nag dina tax mu revenir sur terre affaire président balaa nga ne naam naa nekk fa yow da nga naroon dee da nga naroon dee yow démb nga waroon dee. kon affaire président yooyu ngay wax boo amee caution jëlal caution bi nga jom jox ko Sonko loolu ngeen war a def yéen ñëpp waa waa waa waa waa yow askan bi naafeq yu bon yi fa nekk législative yi jeex na ku nekk bëgg demal seen bopp génn leen ngeen def bloc le 30 yéen ñëpp yow askan bi yëpp Ahmed Aydara le faux shérif la Ahmed Aydara yéen ñëpp génn leen ngeen def boo leen ko deful Macky Sall ni mu def sawaay dambu noonu la leen di def yéen ñëpp dina leen rey xëy na Y'en loolu la xam moo tax ñoom ñu génn ñu ne ana loolu lañ xam tax ñoom ñu génn ñu ne xaaral ma tegal leen Y'en lu ñu wax ñu ne ñoom tamit euh, dañuy def marche Y'en a marre dañuy def marche le. Euh, ah mi ngi nii Y'en a marre nee nañ le 30 caat nee na le 30 li amoon dootul amaat xaaral ma tegal leen li caat wax Macky Sall li amoon le 30 dootul amaat seule la lutte libère gars yi damb il fallait ma defal ko euh, euh, euh, vidéo bi bu gàtt balaa may continuer ci waxtaan il fallait que ma defal ko témoignage bi parce que vraiment lii c'est grave lii c'est extrêmement grave Sénégal Macky Sall feeñ na Macky Sall reykatu nit la non le le trente sorewul <laughs> le trente sorewul de eh, pause bi daf ci baax après nag léegi nañ ñëw deuxième partie vidéo bi su ma leen tegalee lii nañu wax ci Sonko ak liñ ko sotti ak li mu nekk hôpital nañu wax ci loolu ak nan la ñu war a xeexee waaw mais may leen ma may leen ma ma ma ma tegal leen cat ngeen déglu caat parce que yaa naa tamit ñoom seen wax mu ngi commencé bëri seen wax mi ngi commencé bëri ni ngeen yabee Ablaye Wade sonal Ablaye Wade ah tey ngeen war a ñëw def laa même chose pour pour euh, Macky Sall ah, waaw ba yaa naa mar ñëw xaal voilà voilà xaal ma tegal leen yaa naa mar ngeen déglu caat li mu wax nee na. caat nee na Macky Sall yaa fi waxoon lu fi amoon dootul amaat xaaral publicité bi jàll may leen ma gars yi may leen bu kenn dem bu kenn dem ma tegal leen notre ami caat ana mu sax moom non moom waxum bëriwul xaaral may leen ma kii Sané la waaw déglu après caat léegi mu wax voilà caat ngeen ni déglu leen waaw amul kenn kuñ ci jàpp dégg Deng assassin Deng. Deng. Deng. Deng dégg nga li Wow. def mhm. Guy dégg nga waaw waaw dëgg waaw waaw Tá. Tá. dégg nga waaw le le trente loolu di sax dégg voilà le trente loolu du fi merci merci loolu moy wax man mr Shake man mr Shake mangi Sénégal la sama jabar nek xale bu bax la fa am moy xoluma loolu xoluma loolu ndax man xamna ni ils sont capables de tout mën nañ dem jël sa jabar enlever ko wala ñu taal sa kër comme ñu def kër ra mo gën men ragal ma kon bay leen di wax nit ñi nek fi xexu ñu ngi xex parce que. bu ñu gisee ne ñun dañ leen sonal dañuy suñu famille la ñuy dem di di di di di di def pression ci ñoom est may dégg man li ma leen di wax mooy le 30 li saaway wax ba ma ko waxee démb sama laay nee naa leen fan la Y'en a marre nekkoon ba Sonko di def cortège Y'en a marre na ñëw indaale 50 xanaa war nañ mën a indaale 50 booy Khalifa Sall na indaale 100 Barthélémy Dias na indaale 100 ñoom ñëpp ñu dem kër surtout góor gi mais non ku nekk day dem tribunal di xaar Sonko xam nga lan moo daal dal koo démb dañ kaa sotti am na ñu naan VX la xaw ma lan arme arme biologique la arme chimique la am na luñ ko sotti te nit mën nañ la sotti loo xam ne bu feeñagum sa yaram mën nga dem juróom benn weer nga xëy benn jour rek commencé perdre poids dootoo am appétit am cancer mu lay rey ndànk-ndànk mën na nekk ñun ñoo sàggat ba ñu jël Sonko caxat caxate ko daal di ko def loolu première fois ba mu amee ñëpp wax nañ ne lii c'est pas sûr ndax mën nañ ko pikiir mën nañ ko sotti dara patriote yi ngeen sàggat ba ñu jàppaat Sonko dugalaat ko ci biir oto gars ngeen baal ma annonce bi ah, annonce annonce bi bu jàllee ma continuer oh, démba mu amaat démba mu amaat mais

visite yi sax dañ ko arrêté arrêté nañ visite parce que Sonko situation dafa gën a garaaw situation dafa gën a garaaw lan lañ ko sot est-ce que Sonko dina fekk 2024 est-ce que Sonko dina fekk 2024 boo leen sàggane gars yi laaj leen gën leen laaj gën leen partagé pareeguma pareeguma damay bàyyi damay bàyyi jeex na affaire bi jeex na annonce bi jeex na sama yaram dafa tàng. sama yaram bi dafa sama yaram sama yaram dafa tàng parce que Macky Sall yàlla moo ko weer ci affaire dàmbooj bi moo gën a sama yaram ak lu sotti Sonko lii dafay wane ne ñoom they have up the ante they have take the fight to a whole new level maanaam xeex bi ñoom dañ ko yóbbu ci feneen gatsa gatsa bi ñu doon wax ñoom ñi ngi ci vrai gatsa ñoom ñi ngi ci complot ñi ngi ci rey Sonko nag fan ngeen xamee ne Macky Sall tapet la buxkat gis nga nit boo jàppee nit kay war a ko bàyyi mu génn ñoom ñoo jël Sonko def ko li ñu koy def dugal ko këram Sonko ne damay dem hôpital ñu ne ko doo dem hôpital rek gars yi def annonce ñëw leen ci kër góor gi ñëw leen ci kër góor gi Sonko feebar na Sonko bind benn post ne sama biir day metti dama war a dem hôpital tappet yi ñu doon Macky sàll tappet bi mu doon Antoine Diome tappet bi ñu doon Sonko woo sami la xaw ma sami defe naa mooy ambulance bu buñ la war a secourir ñu tiit bàyyi ko mu dem mu dem mu dem hôpital mais ñii ñii ñii mais ñii kan la ñu yab yow yaa ne kii du génn saa waay ne damay dem hôpital nga ne ko doo dem hôpital damay dem hôpital nga ne ko doo dem hôpital Sonko bind poste ne sama biir a ngi metti xaw ma lan lañ ma sotti maa ngi dee gars yi ñëw leen cité góorgóor bi rek tappet yi tappet yi daal di dellu ginnaaw moo tax ma ne ñun ay buqat la ñuy xeexal ay buqat la ñu gis nga nit booy jàppee nit ne doo génn kay waroo ko bàyyi muy dem hôpital ana Sonko tey Sonko mi ngi sami la xaw ma mi ngi sami moo ko jël si mi ngi mi ci benn clinique te Sonko mën na nekk ci clinique boobu 3 jours 4 jours 5 jours mën na fa toog sax ba ba ba le 30 waaw le 30 bu ñëwee di wax procès mu ne leen mënu ma nekk procès parce que man maa ci hôpital ba léegi. un nervi de Bamba Fall a tu tué dama ne dama ne xale yi xajuñu ci Macky Sall tapet la buqat bu rëy la liko dambo tuddé tuddee soxna Batour xamuñu ndax lolo ko merlo xamuñu ndax dambo limu mu xas mambay ñaar Macky Sall boo demee il a perdu le contrôle il a mambay ñaar moo ko ëpp fit foofu boo demee Macky Sall ci bopam tiré biñu tiré dambo est-ce que yëg est-ce que yëg il a perdu le contrôle sais pas. li xew xamatul dafa Je ne soit pour moi, soit je suis commandité moom je ne moi, wala je ne c'est la même chose il est responsable de toute façon il est responsable mais Mame un bi ma est mu dem journaliste je di wax Son Sonko hein? day je Sonko théâtre Mame sax fit mais Mame Mbaye un sax am fit parce que moom xam je ne Je ba pare moom ala kuli ali bu so bu bu bu ñàkk Sall Macky Sall bu gañee moo ko arrangé kon xeex moo ko arrangé Mamour Diallo ñoom ñëpp dañ leen tuddee des cadavres ambulants maanaam ay nit yu dee des morts vivants ay nit yu dee yuy dox moo tax seen sànni tàcc mooy ñun nañu ànd ci ñu rey sénégalais yi man nag sama xarit boobu ma tuddee ko doom rusloo na ma te maa ngi koy artu ne bu dof dof loo seen waa jii boo leen waxul ak moom dina leen dugal ci toog doon yéen ñëpp di ngeen dee balaa 2024 billahi wallahi taalahi waa affaire yëpp nag laa wax kon dafa jot ngeen def nii si xalif omarien bi waa wax leen ma lu mu tudd xalif omarien bi nu mu tudd boobu da xam ne dafa yàgg Cheikh Bachir tàll la tudd xaw ma démb génn na dafa tiit li mu gis démb dafa tiit parce que dégg naa bi ñoo naan am na benn ay amorien yu ñu fa attaqué xaw ma dafa tiit parce que ñoom xam nañ ne dëkk bi bu tàkkee gars dañ leen di song ñoom ñëpp képp ku nekk allié à Macky Sall dañ lay sonn mais moom au moins am na courage dafa ñemagul wax lépp de mais junj doy na borom xel wax leen ma xalif bi nu mu tudd xalif Omar yéen bu doomu ci taal bi lan la tudd waaw non sama xarit la xarit moom xarit la Namou Diallo sama xarit la ñoo bokkoon classe xam naa jikkoom jikkoom na ma ma tuddee ko doom mais dafa dem ba ci biir mu jaay ruum iblis. parce que président buy tiire dàmbuj léegi kenn amatul lay waa APR yéen ñëpp kenn amatu ci lay Didier Badji bu la neexee ngeen xamuñu woon mais dàmbuj bi moom dafa leer nañ naññ naññ Sonko bi ñu jël dara sotti ko ah tey ñuy wax waxu dàmbuj amatu leen lay billahi wallahi tallahi euh, Mamour Diallo Kiruku génn leen ngeen def comme shérif bi gars yi wax leen tur shérif bi nu mu tudd shérifu omarien bi Bachir Tall tudd xaw na en tout cas moom génn la démb mu ne mi ngi ñaan euh, dafa neex trahir na peuple bi waaw mi ngi ñaan Cheikh Bachir Tall xaw ma nu mu tudd mi ngi ñaan xalif généraux yi na nañu génn ñu wax parce que li mu gis ni nee na nañu wax a Macky Sall nañu wax a Sonko parce que tamit du yoon ñuy def lii def la bëgg na wax mais ñemeegul wax parce que kooku Macky ay milliards la waaw kooku je le connais très bien Mamour Diallo day da daan buy def politique ci moom lay dem da koy tudd chaque fois Mamour Diallo kooku Macky Sall ay milliards la ko jox kooku nag moo dem ba ne moom gis na ku war a nekk président te ni mu waxee Sonko la gis ne mooy nekk président waaw nee na nag bu heure jot waxee dina dina wax bu heure wax jotee dina wax mais xam nga lan la ñuy xaar ba dëkk bi takk jëppee comme démb. ñu gis ne xale yi song nañu ñu ngi waaj a gañe ci la ñuy nay am picc nag daal di génn nag daal ne Macky Sall moo tooñ déedéet booy wax léegi ngay wax léegi ngay wax comme dàmbuj dóor nañu ay bal ci biir ci biir otom ba pare dañ ko ndoroon def comme accident la jël oto bi sànni géej mais comme yàlla weer na leen ñun léegi am nañu ay preuve que Macky Sall assassin là am nañu ay preuve que Mariam Faye Sall assassin là am nañu ay preuve que Amadou Sall ñi ay franc-maçon lañu ñi duñu ay jullit ay yéfer yu bon lañu xol yu ñuul kukk lañu yor dañoo soxat dañoo iñaane sénégalais ak li leen Sénégal defal yëpp li leen Sénégal defal yëpp Macky Sall mun ma wax ne non non man du man ma joxe ordre suñu yoon nekku ci yow yaay président de la république ordre bi bu fekkee ne Mame Niang moo ko joxe ñun suñu yoon nekku ci bu fekkee ne Antoine Diome moo ko joxe suñu yoon nekku ci bu dee général Moussa Fall moo ko joxe suñu yoon nekku parce que gars yi rey dàmbul ñoom du ñuy ñëw rek si seen coobare bokk ñu ne dañuy dem rey dàmbul te ñu leen xaalis am na ku leen employé kooku leen employé Macky Sall yooyu yaay ministre de l' intérieur xam ne Antoine Diome yaay ministre de l' intérieur téléphone yëpp tu tout tout tous les téléphones sous écoute lépp lu am Sénégal xam ngeen ko comme comprendre boo leen bëggoon. vidéo yaa ngi noonu vidéo yooyu ñu ngi noonu nit ñooñu xam nañ fan lañu ñu dëkk boo leen bëggoon ñu tey suba bu doon benn waa APR la ñu rey dañu bëggoon rey ñu am vidéo tey boo yeewoo tey dañuy jël vidéo yi jaay jàpp nañ leen bu yàgg kon loolu tax nag ma ne Macky Sall mooy responsable gis nga affaire u naafeq affaire ragal moo fi amatul ñii yëfu dëmm lañuy def man maay njaagu Sonko barke Rasulaay man awma lu may ragal gis nga booy xeex nit benn yoon ngay dee bu ñu demee ñu attaqué sa famille comme li ñu def Mollah Morgun Mollah Morgun taalu këram man gëm naa ne xanaa nag doful nag bay taal këram man loolu moom bu ma ko may rek Mollah moom dof la moom Mollah moom dof la mais dama bëgg ngeen comprendre benn affaire gis nga ñii ay dëmm lañu barke Rasulaay Macky Sall moo gën a bon Sénégal am na ko wax am na ko wax sax Sénégal ci àdduna Sonko wax na ko nee aduna ba mu daj Sall ci gëna a bon xol bu ñuul kukk nu mu ñuulee non la xol bu ñuulee ko xam mënul sax ré man wax famille boobu ya amna lu fa am famille famille Sall boobu ñu de mais Aliou Sall rek xol lan ko Aliou Sall rek comportement am amul émotion ñom dafa melni ne deret dawul si seen i dafa mel glace mo ci daw Aliou Sall amul fi war nañ ko benn jour muy fecc def nii mu ñu fecc duñu football gis ngeen doomu Macky Sall bi leen ren day football xamuñu luy banex xamuñu luy banex duñu ay nit amuñu émotion amuñu yermane ñu wax empathie Macky Sall mo gën a te tëjaate rek la fi nekké te tej nit moy ray nit rek tej nit moy ray nit dégg nañ fa di lu kay tax sax ne day def garde à la fin daf ko yéex def. Pape Alé Niang daan toog di wax sama xarit sama xarit la ma ne ko yow yaa dof ay sama maam daan sama maam di wax ay Youssou Ndour ma ne ko yéen yéen yéen yéen ñii ay miikar lañu ay miikar lañu ñi ngeen gis nga dëgg bu jotee dañ koy wax gis nga waa APR nee naa leen lii yàlla bind ci àdduna APR da baaxuñu dañoo xam nga lan la ay baadoolo yu am xaalis Je suis Wade noble noble 25 ans gouverneur 35 ah, ans premier ministre 45 ans président c'est un noble c'est un point, c'est un intellectuel Abdoulaye Wade déjà Euh, euh ne il noble mais ay baadoo la pas dara qui rek am am dégg naa da doon da doon moodu moodu xaalis bi moo dem ba dof loo leen ñuy def lu leen neex ci dëkk bi duñu ay sénégalais man xaw ma France moo leen récupéré xaw ma dañ leen franc-maçon yi ñoo xaw ma dañoo lekk xaalis franc mais ñoom rey sénégalais yi moo leen tax a jóg ku dem jënd quarante cinq milliards ci at man nag daanu xam nga yii daanu ma ko wax nag maa posé damaa moderne waaye li dal Dame démb li dal Dame Mbodj démb ku mu yeewul kañ ngay man yàgg naa leen avertir ni Sonko dañ koy rey yàgg naa leen avertir ni Sonko dañ koy rey ba fi may wax ak yéen nii ba fi may dañoo gis nga Macky Sall xam nga défaut bi gën a rëy ci Macky Sall ak Marème Faye Marème moom mii kër la jugee jaay jongoma fii reetaan ne nii kër la parce que tamit sa jëkkër lu mu mel loolu noonu nga mel wax ji wax ji sa jëkkër lu mu mel noonu nga mel yaa ko ci bàyyi. mais Macky Sall xam nga jikko bi gën a kii ci moom mooy iñaan defante siré si xalpulaar la comme moom siré si bi nekk ci ci ci euh, Sénégal di def analise xalpulaar la moom nee man xam naa la añam laa dëkk si vol xaw ma côté yooyu ñun pulaar yi ñun yéen xalpulaar yi boo ñu defee dara tant que fayuñu du ñu am jàmm Macky li ko Sonko def le 3 mars mu ne dootu fi amaat tant faywul du am jàmm bu waree rey Sénégal yëpp dina rey mais xool leen tëj yi mais tëj nit mooy rey nit tëj ak rey c'est la même chose xool leen Mankabo lan la def deful dara parce que moom ak waa jooju kan la doon am na fi waa ji waa ji waa ji waa ji amoon problème euh, euh, euh, gaajo am nañ problème ñu ngi ciy tuju gaajo

ñom non lañuy def ay ray reykatu nit dafa def ci am ay sanguinaire ay ray reykatu nit prison mo gën a bon ku la dugal prison moy dalay ray parce que prison Sénégal dafa na len moy yes ci prison aduna prison Amérique mo gën bax prison Sénégal ndax Amérique ñaar nit lay ngeen nekk ci ben ci ben néeg wala nga nekk ci salle bu mag ku nekk am lalam Amérique len rek a tax seen prison bon daf ci bëri ay doomeraam góor jigéen yoo xam ne dañ lay violer yow sa moromu góor ñoo tëdd ak yow te loolu sax am na nu muy demee am na rëbës boo demee sax am na rëbës parce que kii wax na ne am na fa kii wax na ne am na fa MC Niass MC Niass nee na am na fa ay góor yu kon kon prison Sénégal munoo tëdd dañ lay paqueté paquetage sax xewi na léegi dégg naa da ngay da ngay di nelaw parce que amutoo foo tëdd prison Sénégal moo gën a yées ci Sénégal kon Macky Sall xale yu muy jàpp di leen tëj accident yi nit ñaa ngi dee xaalisu réew mi ñu sàcc ko mais kii du ku baax loolu yëpp ñu muñal la ko waaye léegi da ngay jël ay bal di téere nit ñi gars bi il faut mu ko une temps léegi da ngay jël ay bal téere nit ñi dàmbooj li ko dal nii nit ci ñëpp wax Abdou Mbaye affaire naafiq yi muy def di wax na ça n'a rien à voir avec la le procès ça a tout à voir avec le procès dëgg bu jotee dañ koy wax Macky Sall dafa bëgg rayanteeg ñun nañu reyanteeg moom ba jeex takk fu mu yem neex billahi wallahi tàllahi suñuy famille buñ ko war a sacrifier ñu sacrifier suñuy famille ñun lu ñuy dund dund nañ ko ba pare man de sama famille ñun lu ñuy dund dund nañ ko ba pare waaw sama papa mi ngi san 101 ans 101 100 ak dem leen ngeen rey ko <laughs> waaw sama papa dund na téeméeri at ak benn bu dee wax dëgg dina tax ñu rey suñu famille dina tax ñu sauver yeneen famille senegal nañu wax dëgg. mais bu ku nek ragalee baña wax wa APR nak surtout ñom la gëna wax wa APR la gëna wax Macky Sall mi ngi leen di duggal Abdou Mbow Macky mi ngi lay duggal Malik Ndour Macky mi ngi lay duggal Farba Ngom moom dugg na ba pare mom mom mom mom mom mom néna mom day joxe bakkanam pour Macky Sall Mamour Diallo Macky Sall mi ngi lay duggal wax leen mu turu APR gaay wax leen mu turu APR ñibi ñibi bobu xawma lan député Macky mi ngi lay dugal tiru ko Mame Mbaye Niang yéen ñëpp Macky Sall mi ngi lay dugal génn leen ngeen fubb génn leen ngeen fubb ngeen ne seen président bi kat saa yi nag kii nag moom mi ngi bëgg taal Sénégal ndax bu ñu demee ba jël ay bal nit citoyen dem ci télévision Youssou Ndour Youssou Ndour Macky sàll mi ngi lay dugal ndax sa télévision la ñu invité Dame Mbodj ba muy ñibbi ñu bëgg ko rey kon dañ naan yow yaa ko iri Youssou Ndour yéen a iri Dame wa APR genn len genn fupp genn ne Macky Sall nak ñun doñu bu dekk bi tàkkee yow sa avion ngay jël daw ñun ñoy tok Sénégal té xalé yi ma gis dinañu fekk si suñu kër xalé yi dinañu fekk suñu kër dinañu tal suñu kër dinañu dinañu ray ñun tamit dinañ ci ray ñu bari deug la waye guerre civile moy am té armée bi pare na pour jël nguur gi waxna len leen am na benn général bu tudd Cheikh Tidiane Mbodj démb genn na non colonel la Cheikh colonel Cheikh Tidiane Mbodj dañ ko interviewé dafa woote Sénégal set la woote dafa naa xaw ma euh, TV euh, fële euh, Seneweb mu ne armée mu ne armée bi mu ngi waaj génn mënagul génn léegi balaa muy génn police am problème gendarmerie am problème ci ne armée bi doog génn est-ce que xam nga lu tax Macky Sall bàyyi Sonko dem hôpital démb parce que Macky buggul armée bi génn. gars yi xalaat lan moo tax Sonko instant yi may wax a yéen mu ci clinique te Macky dafa noonu du génn Sonko ne damaa feebar damay faj ñu ne doo génn Sonko woo xale yi ñëw leen ñëw leen surtout góorgóor gi sotti nañ ma dara maa ngi waaj a dee sotti ah yow suivre nga ko Amadou man du ma li may waxantuwuma général colonel bi nee na armée bi day waaj balaa muy génn police day déborder te nee na armée armée républicaine man wax naa leen ko. ñun suñu armée ay ay intellectuel la fa nekk yàgg yàgg patriote yi dinañu génn wax kooku patriote la te xoolal boo demee Macky Sall mu ngi koy commencé créer ay problème boo demee Macky ñu woo nañ ko ndànk commencé di jéem a négocier ak moom wala ñu koy menacé mais munu munu ci dara parce que colonel yi dañoo bëri officiers yi dañoo bëri te ñu bëri ànd tuunañu moom du ñu toog dëkk boo xam ne ñoo ko moom suñuy maam liggéey ko ah baadoo la famille bëgguñu ko yàqal duñ ko nangu ay baadoo la lañu man maa ko wax Macky Sall dafa soxor dafa iñaan baadoo la la Marème Faye Sall kan moo ko gën a nekk baadoo la ba pare ñoom xam nga la moo seen jëfoo bu gën a mag dañoo iñaan famille boobu moo gën a iñaan ci àdduna ku iñaan ba iñaane boppam yow nga yor ay milliards mais doo jël say milliards nga dem Dubaï mais li leen dal nattu la li leen dal nattu la am ay milliards te safutu la dara xam nga lan moo la saf di rey ay nit moo leen saf loolu moo leen jox plaisir di tëjaate di reyaate moo leen jox plaisir mais xaalis bi ñu am dix ans daf leen a sàppi parce que baadoo la mënul profiter ci xaalis moo tax américains yi des fois ngay gis ñu am milliardaires yi rek ñoo fi nekk di drogué wu ba xëy benn jour dee seen doom yi di dee ngeen baal ma ana Hiba Thiam ngeen baal ma dorogé wuñ ko ba fii ba mu dee ana ana euh, doomu Youssou Ndour bi du kii moo ko takk waa jooju waa ji waa ji euh, euh, doomu Youssou Ndour Amar du moo takkoon doomu Youssou Ndour bi Amar boobu du du moo fi indi woon benn gel Tunisie ñu nekk ci benn apartement di drogué ba ba Iba Thiam dee jaaji jaaji Touré bokkoon ci moom it Côte d'Ivoire ñu ne xaw ma affaire góor jigéen ñu rey ko fa xaalis bu am baadoolo bu am xaalis day dem commencé di di drogué wu di naan ba dootuñu ànd ak seen sago commencé nag sadik di tëdd ak ay xaj di def ñu fu formation di rey Saddam Hussein da daan taxaw di yor jaasi jaasi la daan yor man maa ko gis garde bi koy garde sax ñemew ko dafa gis Saddam Saddam génn jaasi bi garde bi dellu ginnaaw ñu Macky Sall yi ay miikër lañu li ñuy def ci suuf xamu leen ko am na ci ñoo xam ne si ñoom dañuy naan ba xamuñu fu ñu ne gëmuñu yàlla ku gëm yàlla di nga jël ay ay fital di di tiire dàmboj dàmboj lan la def man ñëpp xam nañ ne dàmboj man dama koy dal dama koy attaque mais dàmboj lan la fi wax lu jara lu jar nga ne da nga koy rey Mame ñaa Niang yaa sàcc suñu 30 milliards loolu war na tax nga ne da ngay rey da ngay doomu jàmm ba pare li ci gën a bon mooy dañ ko ndoroon a rey dugal ko ci géej gi ne dafa réer yëfu dëmm yëfu niika baaxuñu te suñu réew di ngeen ñu ko abal ci nii wala nele billahi wallahi taalaay suñu Sénégal di ngeen ñu ko abal ci ñun ci nii wala ñun ragaluñu dee ragaluñu dee ragalu suñu famille dee parce que yàlla fu mu tuddee sa heure jot na te booy dee sax nga dee ci dëgg mais boo demee fa ngay dem ajjana nga dem gëmuñu ajjana sëriñ yi nañu wax ci ñoom xanaa nag ku dem ba gis ay fital Sénégal

bu démé ba doomu sëriñ sax di and ak ñun melni MC Niass waaw waaw man sëriñ sax duma wax ak ñoom man man dama leen dépassé man dépp li ñu def dàmbuñ wax ji lu ko guddal lu ko gattal nañu yew ñu affaireu layam layam yi mo jeex Macky Sall ñu la may dara dara lañ la dootul may fi affaireu rus amu fi affaireu ragal amu fi té du Macky kese. APR ah, yëpp yéen ñëpp la ñuy tëkk té dañu leen bëgg motax parce que xam nañ ne li ci bëri ay sénégalais ngeen comme ñu té ñu ci bëri andu leen ci ray dàmbooc andu leen ci ray Sonko mais comme seen waa ji dof na mënutu leen ko jot téléphone <coughs> mais Amadou Amadou Ba génnal nga jël sa responsabilité avant qu'il ne soit trop tard parce que kat dàmbooc ñu won buñ ko rayon moom man xaw ma dëkk bi fu ñu jëm Sonko bu ñu ko reyee moom xaw ma dëkk fu ñu jëm il est temps ngeen jël seen responsabilité waa APR man ñoom laay wax ak ku ci jëlul sa responsabilité lu ñuy gën a dem ba le 30 mars parce que le 30 mars dañ nekk dootu ko renvoyé kii rek ngay xamee ne Macky Sall dafa dëgër bopp dafa wow leen dafa dëgër bopp dafa wow leen mais yow procès bi doo ko jël nga sànni ko ci xaj troisième mandat nga jël nga sànni ci xaj nga jël say xaalis nga jël sa milliard nga dem Dubaï. mais mais li muy def tayu ko il est fou nit ki nag bu demee armée bi jël leen seen seen responsabilité te armée bi comme ni ma la ko waxee colonel boobu wax na di nga gis ñeneen ñu commencé wax ba fa muy mujj coup d'état lay mujj parce que Sonko li mu ci doon bañ bañatu ko ci waxoon naa leen le le le 8 mars ba may def live Sonko ne nañu gunge Macky Sall dama mer ba saaga sama téléphone baa ngi nii ana mu sama téléphone bi bii laa yoroon. dafa yàqu sax léegi gisum xaw ma sax fu mu nekk sama téléphone bi ma doon bi ma doon filmer damaa mer bii la gis nga sama téléphone bii hmm, tàkkutul sax moom laa doon filmer lii sànq téléphone bii moom laa leen di wan moom laa doon wan dàmb op dàmb bi mu yàq mais bii laa doon filmer boucle laa doon filmer mais Sonko ba mu ne Macky Sall dañ koy gunge ba 2024 damay ne Sonko yi erreur nga Macky Sall kenn du ko jox chance mais xool leen tey mu ngi rey mu ngi tëj te Sonko mu ngi nii ñuy sotti ko dara kon bu doon da ngaa ragal dee tey mu ngi nii sotti nañu dara te mën nga fa dee bañ koo jekkoo dañ ko waroon dañ ko waroon doggali Macky Sall bañ ko jekkoo dañ ko waroon doggali mais mu dem ci sëriñ yi sëriñ ñu baat ñu dugg na fii génn fii ah teg la lépp teg lépp ci suuf deux semaines la ci teg lu fi amoon dootu fi amaat foofu lañ ko waroon fekk mais sénégalais. coup d'état c'est inévitable coup d'état c'est inévitable parce que Macky Sall du reculer du reculer dafa dof té wa APR dañ ko ragal ku wax mu dàq la wala mu ray la ana sisselo Lo démb doomam moo di défendre Macky Sall encore Pablo Pablo la gis muy xulo ben ben gaay ana sisselo ku wax mu mu mu serigne la wala mu tejj la wala mu nangu sa xaalis mom dafa dul sax wax ak ñom respecté wu leen. waa APR ay jaam lañu ay tàppet lañu ay cogg lañu ay baadool lañu dañoo bëgg lu yobba xaalis jaral na leen ñu jaay Sénégal yow 20 millions li ñu lay jox wala 100 millions wala 200 millions war na tax nga jaay Sénégal ba pare jaayaale sa bopp loolu nag mooy dof ndax dëkk boo xam ne bu tàkkee yow seen kër yi lañ leen di fekk yéen ko gën a xam kenn mënu leen garder ñi di garder dañuy obligé daw te amul benn nervi bu ñu rey bu ñu rey euh, euh, Medina dégg nga kon waa APR laay waxal yeewu leen ngeen jël seen responsabilité ngeen bàyyi Macky Sall ku ci bëgg mucc defal ne Ousmane Noël Dieng député la moo mooy le plus jeune député moom dafa génn mu ne man du ma attaqué Sonko ci affaire Adji Sarr du ma ko saaga Ahmed Aïdara di ko saaga moom di saaga Ousmane Noël Dieng ne ko yow danga ragal ga parce que dangaa bañ waa Pastef saaga la kon Ahmed Aïdara même ñun maa ngi wax affaire de mais même ñun si suñu biir Sonko ñi ko ay jaam lañu ñun sénégalais moo moo moo baaxul nga yaakaar ne ñu man waa APR rek laa fi nekk di xas waaye yow askan bi ñoo gën a nekk jaam waa APR ndax waa APR au moins ñoom xëy na dañoo bëgg am na lu ñu am mais waa yow askan am na ci ñoo xam ne ñoo gën a nekk ay jaam Ahmed Aïdara war na wax loolu wax wax ju ñaaw jooju war na ko war wax Ahmed Aïdara war na wax ne Ousmane Noël Dieng da ngaa ragal booy Pastef ba pare mu ne yéen fi nekkon mo la Morgan gën lii la Morgan gën laa xaaral ba lendi lendi wa passif dina wax lo xamé wa passif yeb dinañ ma lool amel ay dal war nako wax yow li nga am ñun ñotax nga am ko do gat barki rasulallah amul Malick Gakou amul dara do gat bu duloon Sonko yow wax nga ko sa bopp gis na la nga def ben caravan yow kese ak Assane Diouf kenn génn mais campagne bala muy jeex Sonko ñew géej wa yëpp génn moy le faux shérif la baadoola la moy limay wax rek xam nga la affaire yi dañoo jik jékki-jékki rek am xaliss xaalis ay Aïdara lo ko jango jongo bu ga na ñu toon jël la jox lu tës tok na li lay dawal man exercice la war exercice la dawal juddo wuñ ci xaliss xëy benn jour rek am juddo wuñ ci xaliss xëy benn jour ab ab sante ay dara mais dara fan ngeen gis naar nit ku sant ay dara nekk nit ku ñuul Arabie Saoudite gis ngeen fa ñu ay sëtu yu ñuul fan la am naar yu rasis yi bu accident yooyu bu amee sax ñoom dañ lay rey mu naan sama maam yonent la ak dugg na fi génn fi ba pare boo yemoon ci loolu sax loolu sa affaire la nam sa maam nekk yonent ñun ñëpp suñuy maam suñu mais ñun ñëpp ay nit lañu fi kenn dafi gën kenn kenn gënu fi kenn ba toog di wax ay man sama maam yi sama maam man bu mu leen waxoon sama maam li mu def te mu doon lu wóor billahi wallahi taala direct sama yaay direct mu leen waxee fu mu fu mu soxla ko sama yaay direct te kooku dafa def senegal loo xam ne professeur Iba Thiam sax day toog di ko wax billahi wallahi taala mais man du ma sax wax parce que kooku sama maam la li mu def man damay jéem a man man ma jéem a def loolu mais toog di wax sama maam di jéem a exploiter nit ñi ah teew faatee bu wóor sax mënoo ko tere bu yemoon ci loolu mu neex mais wor bi mu wor Sonko iñaane Sonko nee na dafa bëgg nekk président de la l'Assemblée nationale ambition ku nekk am ambition ah mais gëm leen yàlla gis nga seen meeting bi bu doon Sonko te bëgg démb du am nit gëm leen yàlla te xam ne Sonko bu deewee yéen ñëpp yéenay perte Sénégal day takk seen oto yi doo dootu leen am oto dootu leen am dara gis nga Sonko bu deewee Ahmed aydal C'est exercice bobu ngay wax ne nga war dugg na fi dootoo am Sénégal mooy yak ba faw bàyyi leen ambition ay Déthié bëgg nek président Khalifa Sall dama bëgg nek président Khalifa Sall ragal mom nan non non bu def conférence de presse bi ci mbéddi dañuy door lacrymogène déggu Khalifa Sall dem non non conférence de presse buñ ko defee fi gars yi dañuy door lacrymogène wa léegi et après da nga ragal lacrymogène Khalifa Sall yow dund nga li ngay dund soixante-dix ans doo dee pour Sénégal ay ay dëmbooj ñu koy def xaw ma laa Linguère Linguère de fële Bambey organiser ko benn affaire ñu sol yëri cosaan ah mu sol ay oram ñu ne woy laa Linguère yow doo jéem a nekk Yacine Boubou ak ak tala jigéenu talaatay ndeer yi nga xam dañoo taal seen bopp ñu war fi jëlee Macky Sall 2024 yow askan bi nekk di ay laa Linguère de Bambey ah ñu wane ko ndeysaan mu toog mel na reen nit ñi ku ñu yàpp doo leen gis Mamour Bousso des fois mu sol jiin koo xam ne dañoo taal këram Macky Sall dafa yàq këram Mamour Bousso kooku moo diiñ xool leen ko Bousso la sant Bousso mu leer na la moom ci famille sëriñ la jóg la jóge mais est ko gis mu nekk bi di wax ay lii sama maam Bousso bii ah Mamour Bousso Macky Sall dafa toj këram daf ko raser këru un milliard soxor lu tax parce que Mamour Bousso àndul ak Macky Sall Macky Sall ak gërëm ba mu jeex ak dañoo iñaan dañoo soxor mais ay nit rek la ni Macky Sall nit nga Marième nit nga da ngeen di nàcc comme ñun billahi wallahi taala foofu laay conclure doole bi ñoo koyo yor Ahmed Aidara nekkal nit Malick Gakou nekkal nit waaw nekk leen ay nit ngeen topp ci ginnaaw Sonko Y'en a marre comme ni mu def nii cat nopp leen ay nit te ngeen xam ne Sonko bu jeewee fii yéen seen li ngeen am yëpp da ngeen koy perte ñu waa APR rek ay perte de waa APR dañuy xeex ak ñun xeex lay doon guerre civile nekk leen ay nit ngeen protéger Sonko This is a drill. This is a drill. This is a drill. Code Delta for exercise. Ah. Deck one. waaw nekk leen ay nit fi lay conclure mooy doole bi ñoo ko yor doole bi. operational li lay wan ne doole bi ñoo ko yor li lay wan ko yor bàyyi dafa bind post Facebook maa ngi feebar war a faju ñu ne ma doo faj kon ñëw leen ci sa góor gars tiit. ñu ne ambulance bi ñëw ne dañ ko bloqué bëgguñ sax ambulance bi dugg gars yi tiit bàyyi ko gars yi tuut gars yi tiit bàyyi ko mu dugg Sonko kon loolooy waree ñun ñoo yor doole bi bu doon nañ ko bëgg rey du ñu bàyyi ambulance bi ñoo yor doole bi le 30 mars booy am leen fulla am payda man loolu rek laay wax loolu laay wax gaay yi am leen fulla am payda li ngeen def xeebuñu ko ñu ngi leen di gërëm waa gars yi sax dana noonu. am leen seen fulla am seen fayda le 30 mars ñun waxuñu kenn dem leen ngeen taal kër jàmm waxuñu kenn dem leen xaaral man dafay dem leen ngeen euh, ngeen rey Macky Sall wala ngeen rey waa APR mais ñun ñu leen di wax mooy am ngeen droit ngeen gunge seen leader am ngeen droit ngeen gunge seen leader génn leen en masse. boo leen génnee policiers yi nag ne dañuy jàpp Sonko protéger leen seen leader te bu leen nangu Macky Sall ne Sonko du bokk ci ay élection wala Macky Sall ne dafay def troisième mandat gaa yi laaj bi loolu la woon maa ngi leen di euh, wax ne suba la samedi. on scene command. report to deck suba laay génn wàcc bato def sama laay laay boobu laay gën a live bu suba laay gën a firi kon kon leen ma suba kon leen ma suba live bu suba laay gën a firi parce que fàcc ko voilà dañ ci gën a waxtaan mais dama ñu koy wax du courage du courage te te te santal yàlla la ci gën kon suñu ñun dama santal yàlla la ci gars yi ba beneen merci laaj leen partagé leen abonné leen ku abonné wul na abonné merci ah